bismillah Yeah. <laughs> njàngum njàngum rajas mu sell la ñu tànn ñoo xamante ne ñoom sëñ Ibra Gueye waxtaane nañ ko ba xam ñan ak ñan lay doon ñu féetale leen foofu loolu sëñ bi da koy dégg loolu lépp sëñ bi da koy dégg sëñ bi day déggaale sax li nekk ci pénc bi ndax dañoo waajal ci communication ay ay ay ay kii ay ay ay ay ay ay station yoo xam ne maanaam benn bu ñu day jokkaloo ak moromam ñu def régie boo xam ne la ñu bëgg mu jàll mooy jàll ñu jox ko télévision yëpp ñu jotandoo ko loolu loolu loolu la gars yi daal Mbacké lépp jàpp ni la xel yi xel yi sax li ko tax a neex mm-hmm. mooy sëriñ bi daa gërëm bis bi lu waay xalaat mu neex mu jub <laughs> ci sa barke rek jërëjëf est-ce que <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf si eh, si waaw ma saa ko dégg mu mu ne. Mm. Mm. maanaam bi suñ tubaab ñëwee. Mm-hmm. ci ci la dox jéego bu gaaw a gaaw a gaaw. lu wér la de. daal di wax ne wa bi yéen rek kalkalal mu ansé. jërëjëf lu ngeen fi gis mooma la <laughs> jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf. Amen. Amen. لك Euh, dafay dafa ñëw fii nag tey ci liggéey bu màgg bi nga xamante ne Cheikh Mamadou Mountakha moo ko ko digal mu ànd ko dongo yi ñun ñii ñëpp ñu tàbbi ci biir euh, ñun ñëpp ñu am ci tawféex ndax ànd ak moom yàllaa koy dimbali nit waaye du ngóora muy jottali nag cant gu goo xam ne sori na ci moom lool ci mu Moustapha Mouhamad ndax nee na ñëpp ko yàgg naw ci li nga xamante ne mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ni mu ko ñoree ak ñu mu sóoboo ak ñu mu dëggoo ci moom ak fulla ji mu ci am euh, bés bi nga xamante ne moom Cheikh Mamadou Mountakha moo ko digle ba mu ko yëgee fa saasa la joxe ndigal njabootam gépp lépp lu ñu am ñu dajale ko fonkee ko noo xamante ne mel na ni bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal muy bis bi ñu baaxoo daan ko màggal saa su ne kon bis bi tey ji desewu ci dara waajal na ci waajin woo xamante ne ku joxe boppam ba jeex takk di déglu ndigal sëriñ bi mooy defee noonu. loolu nag moom ginnaaw sëriñ bi da ko santub liggéey mu jóg di nemmeeku ngir bu demee di leeral sëriñ bi mu leeral ko loo xam ne teg na ci bëtam ba muy nemme ko loolu mu ne nag fa mu agsiwaale ba fii gis liggéey bii ak wàccaay wii kon loolu nag ak cant la goo xamante ne ànd naag ñaan ngir ki nga xam ne mooy kilifa gi taxawu lii euh, taxawaay bi mu taxaw ngir wéyal liggéey bi nga xam ne maamam ca la nekkoon ba wuy ji seexul xaddim noonee mu ngi ñaan yàlla suñu borom kàttanal ko ci guddalu fanam dolli ak mënam dolli yitam gën dimbali njaboot gi ba saa su ne yoon wi mu leen di teg mu yoonu sàkku ngërëmal sëñ Tuubaa ñu mën caa mu mën na ci noonu ba làq ngërëmal sëñ Tuubaa xolam daal sedd na sedd goo xamante ne mi ngi koy dolli di ci di teg ak ñaan néew naa nag euh, maanaam matalewu ma sax mën a jottali li nga xam ne sëriñ wax na ko ndax euh, xol day ëmb loo xamante ne làmmiñ du ko mën a tudd waaye moom mii sëñ Hamsatu ñu ngi ñaan lii nga xam ne nekk na ci ba sëñ Muntaxa teg ci bëtam xemmeem ko naw ko ba ñun ndongo yi ba mu ñu joxee ndigal dafa nañu sëñ Hamsatu nag kuy liggéey ci xasida yi na nga xam ne moom ngay dimbali kon daf ñu ko joxoñ kon moom fa mu fa mu ne ne ñëpp xam ne mooy fi nga xam ne képp kuy wut ngërëmal sëñ Tubaa mooy li sëñ Tubaa joxoñoon ne mooy yoon wi ndax sëñ Muntaxa wax nañu nañu xaside yi mooy jëmmi sëriñ tubaa lu waaye di sàkku ci sëriñ tubaa ci xaside yi nga koy def kon moom mii soobu na ci loolu bu yàgg bi bu gisul kenn di ko def ba tey jii ñëpp a ngi koy xemmeem kon loolu ci kanam la jëm ñoo ngi sant bu baax di sañ sëñ sëñ Moustapha Mouhamed di ko di ko ñaanal bu baax ndax euh, sëñ Moustapha Bassirou mii dikkal na boppam ci ndigalam ànd ak délégation dem ba ci sëñ Amsatou taxaw ci taxawaay boo xam ne feeñal ci dogu gi nga xam ne dogu nañ ko ci ànd ak ànd ak moom liggéey bi loolu kon ñu ngi ciy sant bu baax di ko se di di di di jottali kàddu yoo xam ne lott nañ ci mën ko jot na ni mu ko ni mu ko waxee sax jërëjëf. jërëjëf sëriñ bi daal ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziar ci turu Baye Serigne mii kii mooy suñu jëwriñ ñun ñëpp. donc ñu joxe ndigal léegi bu fajaree ba ba waxtu wii weesu fii lay ñëw ngir taxaw liggéey bi sëñ bi nag dafa wax ne. liggéey bi suñ Muntaxa santaane muy njàngum xasida mi te xasida lépp a ngi ci lu ngeen ci mën na ngeen ko def te na ci taxaw na nga ko wax Serigne Diop na na ko wax mbool nañ nañ ci taxaw nu raw nañ naan taxawee ci màggal màggal Daaru Xudoos ma ne ko fu ñu ko defee ci biir kër ga mu ne ma déedéet ca bitti nañ ko def fa ñuy def base ba ca bitti te te nañ ko fonk loolu loolu la digle te boobu ba léegi it mi ngi nuy bàyyi xel ci loolu taalibe yi it am ci pas-pas bu mën sëkk ci ngir Sëñ taxa li mu bëgg mu amee ko noonu waaye nag beneen ba ci sa nag sa jëmm ju tedd ji mu xamul ne nan ñëw ci yow ndax ndax kilifa mënut a ñàkk te yow ci sa loxo lañ ko teg ak sa yuusu mii nekk ci Hizbut Tarqiyyah yor organisation bi moo taxoon boo bee ma jógee fi moom rek bàyyi sëriñ mi yebal ma keroog am yitte waaye kon moo doon ñëw ñu ñëw xamale la ñoo ngi seen gannaaw ci liggéey sëñ Tuubaa bii fas ko yéene ànd a yéen ba lu nu ci wax rek lu ngeen nu ci wax rek ak nu ngeen ko bëggee rek noonu lañ ko defee ndax ngërëm sëñ Tuubaa lañ ci bëgg sëñ Moussa nag moom li nga wax léegi rek nag nu ko ñaanal Mbàkke bu baax a ndax moom day faral di wax ne mën mii daf ma ko wax ba tey yoon wi ma ko mujj waxi ca Brescia ca Italie ñu jóg jëm ca Salba muy war a waxtaan ni mu am al ñu te xasida yi am al dugute mu ne ma mu sowaat te ko loo ne mu ne bëgg naa nit ñi xam ne ab mu sowaat daal bëgg naa nit ñi xam saadix la wallahi la xasim te loolu rek dul bëgg naa ñu xam ne ab murid saadix la kon nag loolu rek moo ko yóbbi lii bëgg liggéeyal Sëriñ Tuubaa kon Mbakke boo gisee ñu ñëw noo ngi tuub coono yéegale ba fii barab bi de am amuñ sikk ci ne barab bu ngërëm la barabu ngërëm ndax suñ suñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma di ñooñ suñ Tuubaa ñëpp woon na nga yéeg yéeg di kawe rek sëñ Tuubaa man man loolaa ci fas moom escalier yi nga yéegi fii nii barke sëñ Tuubaa loolaa ci fas jubluwuma ci rek ñëw fii waaye daa ba nga yéeg sëñ Tuubaa ak barab yi sorier te mënuñ te agsi fii ngir jëmi xasida yii la ma ko tëjee nag xasida yi moom Sëñ Abdou Khadir daa masoo sama waajur am am xasida yu mu koy binduloo jox ko kii bu mag ba mu ko joxee bañ jóg bay dem sëñ bas daal ne ah man ka fàtte naa ko laaj ba xam xasida yu ñu ci war a def ñu daal di départ dem mu mu daal ko nuyuwaat ne ko dama na laaj ndigal ba xam xasida yu ma ci war a def sëñ Abdou Khadir ne ko sëñ Basiru xasida yi sàqum wurus la du ma ko fàtte sa sàqum wurus waaw sàqum wurus la muy muy muy raay ca kaw sàqum wurus la gu sa xel def rek dem ci ndax boo boo dee xool daan gu maj gu maj def la yóbbi séenéet sàkku wurus moom loo gën a day melax rek billaahi wallaahi loolu wax sëñ Abdou Khadir ma na xasi sëñ tuwaay sàkku wurus la muñ baraay ko ci kaw sëñ tuwaay ne la tibbal rek a jot xasi ak ñaari bayit ak ñetti bayit ak yëpp rek fenn fu ci nekk ba ko sëñ tuwaay bind lam ci bëgg ba mu tolloo ci bayit wala ko suñu borom may mu dagg foofu loolu lool loolu mooy mbuutum xasida yi kon sàkku wurus nag la ngeen taajalaat nii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 te yàlla laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahul ilaaw sa xel dem ca ja xawsul wara kada dule fa njaare bu kabbaree sa xel ma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 murit nga mbakke balla yaadi saadix bu dëggu lool wax ji la am na waafiq boole te yaa ngi dundelit ak mbokku loo xaqatit len nga dem ci mbokku taxawlu naa yaay gu ndaw luy wun baax te ñaan nga yàgg wér na yaa xar baax ma julli selmal saa xasida xaw mi sakki yu may lamp bi raw na law